ulul jazmi bismillah rahmaan rahim yi nga xam ne ñooy def jasam ci fin mu ne da defal jasman jasam fil fi'li ci fi'l bilaa ci laa naahiya ni ki laa tafal wa laamin ak laam laamu lamri wal ni ki tey li tafal li yunfiq zu saatin min saatihi wala laamu duaa'i ni ki li yaqdi gis nga niñ ko jasame dagg xarafu mujj li yaqdi alaynaa rabbuka yaa maaliku li yaqdi alaynaa rabbuka dégg nga wala sax nga jëme ko ci muxaatab li tafal anta wa minhu li taqum anta yabna xayri qurayshin kay li taqdi xawaaija almuslimina li tafal li tadrib zaydan au lieu nga ni ko idrib zaydan nga ni ko li tadrib kon mu daari amuñ jasam la ci laamul amri kon li tadrib maanaam moo idrib ñooy yem hakada naka noonu defal jasam ci fiil bi lam ci lam ki lam tafal lam yaqum zaydun wa lamma nga ni lamma yaqum mooy taxawagul nag loolu rek ko wutaleeg lam lam taxaw lam yàqum taxawul lam maa yàqum taxawagul nga xam ne ña ngay xaaru ni dana ko def wuteeg lam wajsim jasamal bi in ak in li tàmbale yooyu nu passé nag benn mu daare o rek la ñuy jasam li tàmbale fii ba ci cat la nag ñaari mu daare o lay jasam maanaa ci ñaari jumla lay dugg jumlay sart ak jumlay jawaab su fekkee mu daare o la yëpp mu jasam leen lafzan su fekkee ni nag duñu mu daare o kon ñu nekk barab bu jasam jumla ja rek suya boo suya boo jumlay sart ja suya boo jumlay jawaab ja wajsim jasamal bi in wa man wa maa wa mahma ayun mata ayaana ayna idma wa xaytuma anna yooyu dañuy jasam bu ci ne ñaari jumla ju sart ju jawaab su feel ja dee mu daare umu jasam ko lafzan su dee maadi jumla ba nekk barabu jasam su dee jumlay lisim waaye loolu nag na fekk jawaab jaade de jumlay sart mun ta doon lisim jumlay lisim mun ta doon jumlay sart waaye jumlay lisim mën na doon jumlay jawaab dana wax nag na ngay def su boobaa waaw dana ca àgg dana leen foog nga def ca faana bi in dégg nga ni ki soo ne in tafal in tafal tujisa in yasha yarhamkum wala man man yaamal suu'an yujisa bihi dégg nga wala ma maa tafalu min xayrin yaalamuhu llahu ni wala mahma ni ki mahma tajidna mahma tatina tajidna kiraaman waaw misaalam ci alquran mahma am na ci waaw dafay gudd waaye su boobaa jumlay sart ja mooy tatina mahma tatina bihi min ayati jumla ja mooy fama nahnu laka bi muminin kooka jumlay lisim la kon dana la wax léegi ni jumla joo xam ne boo ko bëggoon def jumlay sart du ko man boo ko bëggee def jumlay jawaab kon na faa dikk faa gi mooy tegtale ni barab bi jasam la wa mahalluha jazmun in qurinat bil faa yaani jumlatal jawaab wala ayyan ni ki ayyan ma tadau fa lahu l asmaul husna ji nga ni mu jasame tadoo mandar mu jasam mooy xadaf nuunu rafa jumlay lisim ji liñ ci doon wax nag léegi jawaab ji jumlay lisim la te kenn mënu koo def sartu in ndax mubtada xabar la kon nga ni kon fa fa lahu l asmaul husna faa ji moo lay xamal ni jumla ji barabu jasam moom la ñuy wax ni mahalluha ay jumlatul jawaab ñu ne wa mahalluha jasmun in qurinat bil faa mata ni ki mahma mata tatina tajid xayran wa ka qawlihi ca way mata tatina tulmim bina fi diyaarina tajid xataban jazlan wa naaran ta ajjaja waaye moom dafa ni mata ah waaye li mu misaale du mata ay yaana la misaalal bayti wi ci topp yaa ngi koy gis xam nga kon waaw kon dafa dawal bayti wi mu dawal bi mu jëkk a wax moom asihi taatihi waxtu woo ko di ko gis nga taati yaa nga di bom comme fil mu daa rag mu gis nga dañ ko jësam taasoo ngay jëm di xool di jum ilaa daw inaari yi ci leeru safaraam maanaam soo ko dikkee di xaaraanu ñamu beer ndeem mata taatihi waxtu woo dikkalee diw taasoo ngay jëm ilaa daw inaari yi ci leeru safaraam di ko xool bi maanaam safar naarul xiraa safara beer ndeel ga maanaam boo ko dikkalee di yaakaar ci wërsëgam tegit nga fekk xayra naarin ngeen ji safara woo xam ne indaha nekk na fi moom xayru mooqidin ngeen ji taal safara ngeen ngeen ji taal kat taal maanaam nga fekk teraanga ju bare joo xam ne gën jaa baaxi aji terale moo ko loolu la ci jublu dégg nga lim ci soxla ci naxu taati jasame nga ko xasaf mu tajit jasame nga ko sukkoon ndax feel mu daare amu wéru mu ah déedéet waxal ak banati be- ay yaana itam ni ki bu dee bayt ay yaana nu'min ka ta'man gayrana wa ida lam tudrik al amna minna lam tasal xajira ay yaana nu'min ka fu nu bu nu la wóolu leexee maanaam bu nu dalalee sa xel ba jàqatu dégg nga amina wóolu na tiitatul amanahu wóolul na ko dégg nga dégg nga nuu min nag fi'lu mudaari umra wéru muj la gis nga ni ñu ko sukkoon ta man ba tey fi'lu mudaari umu wéru muj la gis nga ni ñu ko sukkoon ak jasama bu nu la wóolulee boo nu tiital rek ta aman nga wóolu xayra naa ko dul nun nun rek mooy nun dong nga ragal ci nit ñi amma boo demoon ba tiitatoonu jeex na dootoo tiit keneen wa ida lam tudrik boo jotul al am na ak kóolute xel mu daal min naa ci nun feeg sa xel dalul ci nen lam tasal doo dañ xadiran di aji ragal di aji wat- wattali nun dong nga ragal day def faxru ci kaw ah ay nama it moo ci topp niki ah ay nama riixu foofu xame ni ngelaw ga tuma yil ha dana ko jengal ay nama tuma yil ha riix tuma yil nga sukkoon laam ngi ay nama ko jësam tamit mu jeng kooku mandarga jësamam sukkoon dégg nga ay nama takunu yudrikkum takunuuna la woon waaye gis nga nuun rafaaga dem yudrik gis nga sukko bi naa na maanaa jësami nañ ko sukkoon waxal idmaniki fa wa innaka idma taati ma anta amirun bihi tulfi man iyaahu taamuru aatiya wa innaka wóor na ni yow idma taati waxtu wooy def idma ma nga noonu gis nga ni mu jasame taati ngeen taati boo dee def maa li nga xam ne anta amirun bihi yow ku koy sant nga nit ñi li ngay sant nit ñi mata taati idma taati booy def maa li nga xam ne anta yow amirun bihi aji santaane nga ko soo ko dee def tulfi nga daal di fekk man ka nga xam ne iyaahu taamuru moom nga doon sant nga fekk ko moom it aati yan mu di ko aji def maanaam li ngay santaane soo ko defee ñu ngi ko doon santit da nga fekk ñu def waaye boo dee santaane loo xam ne bu ñu la gisee fekk yow defuloo ko kon sa wax ja doo am barke kenn du ko faale loolu la bëgg a wax isma taati jasam ji nag mooy xasaf yaa tul fi ba tey tul fii la woon fii lu mu daari umraagu muj la moom it mandarga jam xasaf xasaf muj ñaari fee xaysuma xaysuma itam ni ci baytu wow حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقم فوف جبه جنغا في المدار مغير مجل سكونا يقدر دال دي دوغل جواب دي جنغا في المدار مغير مجل يقدر دال دي دوغل الله يالا لك نيالا نجاحا فجب آجو في غابر الأزمان ما نام تي لي نيو تي جامونو ألك غابر خمغني غبرة دنا نيو دنا فيري تي جامونو passé na ci gannaaw xabara des na ci kanam xaabir lu passé xaabir luy ñëw yooyu moom dëdd la baat dëdd dafa am ci arab baat boo xam ne day jëm côté bii jëm côté bii xaabir ci la xabara feela mit noonu fii nag mustaqbalu zaman la ci jub ak banati anna ndiki xalilaya anna taatiyaani ya taatiya axan xayra ma yurdikuma la yuxaawilu xalilaya yéen sama ñaari xarit anna taatiyaani ya waxtu ngeen ma dikkalee yéen ñaar taatiyaa ngeen dikkal axan mbokk moo xam ne laa yu xaawilu du jéem du fexe xayra ma yurdikuma lu dul lu leen di kontaan loo rek léegi wàllu naxu bi jasam gi bi anna def léegi taatiyaani ya noonu rafaaga dañ na noon gi nga fi gis noonu wiqaaya la du dëgg su fekkoon noonu rafaaga anna dindiwu ko da nga naan taatiyaa ni ni ya ni ngeen jànge ataidaa ni ni ya ata idaani ni yéen nunu rafaaga dafa ne ta idaani da ngeen daal yéen ñaar xam sag listifaam di ata idaani ndax da ngeen daal nga bëgg andi yaw mutakalim foog nga andee ci nunu wiqaaya mooy gu ñaareel gi ata idaani ni ya suñu ko jasamoon nunu rafaa gi dem ni ki fii taatiyaa ni ya taatiyaa ni ni ya la waroon aywa bu ñaareel bi taatiyaa nii kese ju amul nunu yaw mutakalim la woon kon nunu rafaam rek moo dem mu des taatiyaa waxtu wu ngeen ma dikkalee yéen ñaar ngeen dikkal mbokk moo xam ne lu leen kontaan loowul rek du ko wut mu ne nag léegi yooyu mu lim ay lisim lañ lu dul xarf lu dul in ittifaqan bayna nuxaat wa isma alal saxi inda nuxaat araf la ci alal sax nga xam ne isma moom am nañu ne lisim la moom la ni wa xarfun isma dégg nga wa xarfun aw xaraf la dégg nga isma isma xaraf la ma dafa dawal xabar maanaam wa isma xarfun alal asaxi nag fokk nag ndax am na xilaaf waaye ka in comme in ittifaqan moom kenn wutewul ni in xaraf wa baaqil adawaat yi des ci adawaat yi jasam tàmbalee ca man ak maag yi mu àndal yëpp asmaun ay lisim lañu ba tey ittifaqan waaye yooyu nag a- adawaat yooyu yëpp yaqtadina dañuy sàkku ci alay ni ñaari fiil maanaam sart ak jawaab la ñuy jasam ñaari fiil yi sartun benn bi mooy sart boo xam ne xuddima jiital nañu ko yetloo di topp ci moom aljazaau jawaab ja jazaau mooy pay jawaab mooy to maanaam jawaabu kalaam ak jasaawu kalaam ñoom ñoom lañu boole ñaari tur yi moo tax mu ni wawu sima tudde nañu ko ba tey jawaaban jazaau jumla yi bu la neexee ni ju- sart ak jasaaw bu la neexee sart ak jawaab moo tax mu ni yetloo di ca topp aljasaawu jumla yi tont la wawu sima tudde nañu ko jawaab tudde nañu ko itam ne nag ni ki misaal yooyu nu doon wax yépp nag bu yóbboo nag maad yey ni ñaari fiili maat la nga ni in qaama zaydun qaama amrun kooku fiilu maat la euh, kon l- ak seeni faayil jumla ja mooy ne barabu jasam aajowul nga di ci def fa ndax fiil moom mën na sart ànd ak in maanaam mën na doon sartu in fe jumla joo xam ne sartu in in mën na ca dugg kooku boo ko defee jawaab du aajo fa aw mudaari ay ni mbaa ñuy ñaari mudaari in yàqum zaydun yàqum amrun maanaam tul fiihima da nga leen fekk maadi yey ni wala aw mudaari ay ni aw mutaxaalifay ni wala ñaar ñu wute benn bay charte benn bay jawaab Eh, xam naa luy gën a bare nag bu ñu dee wute jumlay charte ja nekk maadi mudaari uma nekk jawa nekk jawaab ni ki in qaama zaydun yàqu yàqum amrun loolu mën na nekk Eh, dégg nga Hmm. أيوة آه، تلفيهما أو متخالفين بأن يكون الشرط ماضيا في محل جزم والجزاء مضارعا نحو إن قام زيد يقوم أمر واو أو العكس جيجل نك أو العكس ولا سفان بأ من لا وهو قليل لنيا ولا دي ni ku may fexeel fexe mu bon kayd mooy fexe nit ñi di fexeel ma man yëkkit nii gis nga jasam gi yëkkit waaye jumlay sart sàngoog mu daari on aywa di sëy yi in ci lu ñaaw ku may fexeel lu ñaaw kuntu seetoo seetoo kuntu feelu maat la kuntu kaana kaana ak li si ma xabaram nekk barabu jasam mooy jawaab ma nekk ci moom comme laan ka sajaa comme ab fot bay na xalqihi ah li ki fot bu nekk diggante baatam war wariit ak si ditu loosal bi wa mutaxaalifayn wa baada maadin rafuka aljaza xasan wa rafuhu baada mudaariin wahan wa baada maadin gannaaw jumlay sart bu dee feelu maat maanaa kon wa rafuka sarafa aljaza jawaab bañ ko jasam xanaa rafaa ko xasanun lu rafet la baada maadin ci gannaaw feelu jumlay sart ji nga xam ne feelu maat la kooku moom rafet na mën nga ni in qaama zaydun yaquumu amrun bañ a jasam yaqum du dëgg wa rafuhu rafaay jawaab nag baada mudaari in ci gannaaw feelu sa- jumlay sart joo xam ne feel ja mudaari la kooku waxana doya dina ci arabiyeer ñaaw na rafetul moom ni ki boo ne in yàqum zaydun yaquumu amrun loolu moom rafetul du dëgg nga door ni mu door ni waqrun bi faa xatman jawaaban law jucil shartan li in aw xayriha lam yanjail waqrun na nga lënkale bi faa in ci faa na nga na nga lënkale jawaaban jawaab joo xam ni na nga lënkale jawaaban jawaab moom mooy mafoolu mooy mafoolu waqrun lënkale mooy boole dendale dendaleel ak jawaab joo xam ne law jucila soo ko bëggoon def sartan sart soo ko bëggoon a def jublay sart li in ñeel in aw xayriha mbaa beneen adaat bu dul in ni kii yamu àndal yëpp lam yan jail du ko mën a nekk bépp jumla boo xam ne boo ko bëggoon def jumlay sart ñeel in wala keneen du mën a doon jumlay sart nee na kon soo bëggee mu nekk jumlay jawaab boole koog faa benn ci jumlay lismiya dégg nga amrun qaimun bu jumlay lisim kenn du in mënula dugg ci jumlay lisim mukk du am mubtada du topp ci in waaye kon soo ko bëggee def jawaab day aajo nag nga indi faawu jawaab faaw faa gi moo lay xamal ni di jawaab jumlay jawaab la tey barabu jasam la ni kon da nga naan in yaqum amrun in yaqum zaydun fa amrun qaimun dégguloo faa gi ngay indi ñu xam ni kon jumla ji jawaab euh, jasam la mooy jawaab moom la ñu naan mahalluha jasmun in qurinat bil fa moom jumla foo ko fekk nag dégg nga dégg eh, ayyamma tad'u falahu lasmaul husna tad'u fi'lu charte bi la jasamam xadaf nuunu rafaa gi fi'lu juróom la woon waaye jumla ji jumlay lisim la soo mënu la doon sartu in ak leneen ah moo taxit kon na nga indi faa dugal ci lahu lasmaul husna dégg nga lasmaul husna mu- mu- mubtada la mu ñu mujj lahu jaar ak majruur xabar ju daw la nga indi faa def ci nga ni falahu lasmaul husna loolu mooy waqrun booleel ak lënkaleel jawaab boo xam ni law juila suñ ko defoon sartan muy sart li in ñeel in aw xayriha wala ku dul moom ci adaay maag maha maag yëpp lam yan jaxil du ko nangoo nekk kon na nga ko boole bi faa in ci faa xat man ci lu war ndem da ngaa bëgg mu doon faa nag wa taxluful faa ida al mufajaa ka in tajid dégg nga ida lana mukafaa dégg nga mu ni nag wa taxlufu dana remplacer ida al mufajaa ida mbetteel ji al mufajaatu moo di bette baatu ida bi tegtale mbetteel ni ki yow mu man daal dama génn rek noona ma daal di yem ci diw mu bett ma ni ki xarajtu fa ida zaydun fil baabi waaw kooku mooy ida al mu- mufaja ida jooju nga xam ni du sart de bu ko teg ida jaa bu dikkee zaydun kooku sart la dégg nga da dul ida day sart du sart suy jasam moom waaye sart la moo tax jawaabam it du nekk du am barabu jasam du am barab ci liraab jawaabu jawaabu sart su dul jasam du am barabu liraab moo xam law la wala idaa yooyu sart lañ waaye duñu du ñu jasam kon nag sart su dul jasam jawaabam bokk na ci juróom-ñeenti jumla yi nga xam ne benn du ci am barabu liraab waaw waaye gis nga idaa ni mu remplacé faa ndax lanaa mukaafaatun du dëgg jumlay sart la mubtada a jumlay jawaab la mubtada xabar la te waxoon nañu ni mu- mubtada in du dugg ci jumlay lisim kon nag faa moo fi daan nekk waaye mun la faa nag ida mu faaja am mën na ko remplace mënoon nga ni in tajut soo tabee fala naa mu kaafa atun waaye ida mën na ko remplacer in tajut boo ida la naa noon a fekk nu nit ñeel na nu mu kaafa atun ak mën a fayante lu baax wal fi'lu min baadi l jaza in yaxtarin bil faa awil waawi bi tasliisin xamin wal fi'lu fi'l min baadil jazaa'i ci gannaaw bu jawaabu sart dikkee ba yeggal ba jàll fi'l ju ca topp nga ataf ko ca kooku in yaqtarin bu fekkee dafa ànd ak bil faa'i wala waaw nga indi jumlay sart indi jumlay jaz jawaab indi nag fi'l topp ca boo xam ne dafa ànd ak faa mbaa waaw nga atafe ko xaraf yooyu kon xaminun lu yelloo la moom jooju fi'l bi tasliifin Hmm. yaxfir lakum ah, wa yaxfir ah, na mu ko anam yuxaasibkum bihi llahu fa yaxfir liman yachaaw ci jànginu naafi dañ ko jasam fa yaxfiru liman yachaaw ci raayat xabs anaasim dañ koo rafa dégg nga fa yaxfira it mën nañ koo nasab arabiya gi nangu nanga ni bu dul woon alquran yett yëpp lu la ci neex wax bi muy alquran it yaar yi jàngee nañu ko fa yaxfir la naafi jàng fa yaxfiru la xabs anaasim jàng boo boo boo nasaboo nit fala baas ci bu dul alquran alquran dañ ko riwaaya rek noonu lay mel moom kenn du ko sañ soppi wa jazmu naw nas nasbun li fi'lin israfa aw waawinin bil jumlatayni tanafa dégg nga ah, y- wa jasam ak nasab n- yaari atte yu dagan la li fi'lin ñeel fi'l israfa ju ne ci gannaaw faa wala mu di ci gannaaw waaw inik tanafa ndem dafa peegu bil jumlatayni ci jumla sart jaag jawaab ja dafa jaar ci seen diggante te ànd ak faa mbaa waaw ah kooku bu la neexee jasam ko mbaa nga nasab ko waaye bu ko rafaa foofu dégg nga ah, niki tey in yaqum zaydun wa yaxruj ah kon boo ne in yaqum zaydun wa yaxruj mbaa nga ne in yaqum zaydun wa yaxruj xaalidun ukrimka wa yaxruj jasaman wala nga nasab ko in yaqum zaydun wa yaxruja xaalidun ukrimka iktanafa teegu na moom bil jumlatayni ci ñaari jumla ju sart ak ju jawaab in yaqum mooy jumlay sart ukrimka mooy jumlay jawaab yaxruju ànd ak waaw nekk fi su fekkoon da nga da nga ko da nga ni fa yaxruju mu ànd ak faa du dégg nga li nu wax kon mën nga ko jasam mën ko nasam in yaqum zaydun wa yaxruj wa yaxruj xaalidun mbaa wa yaxruja xaalidun ukrimka mbaa nga ni in yaqum zaydun fa yaxruj xaalid wala fa yaxruja wal fi'lu wa jasmun jasam aw nasbun wala nasab ñaari atte loo xam ne aji nekk la ñeel fi'l israfa ju ne ci gannaaw faa aw waaw wala gannaaw waaw ah inik tana fa ndeem dafa peegoo moom fi'l ja biir jumla tey ni ci ñaari jumla yi ñu seq ko du leeral ma ne du loolu dégg nga ko wal wa chartu yugni an jawabin qad ulim wal aksu qad yaati inil maana nee na wa chartu chart léeg-léeg yugni dana doy an jawaabin walis jawaab joo xam ne qad fuhima déggeef na ko léeg-léeg bu ñu mënee xam chart si buñ ca mënee xam jawaab mu daal di doy soo nee tey anta alimun in taallamta in taallamta chart la ah doy na walis jawaab ndaxte anta alimun ji dawlu woon tax na xasees na ko xam rek te itam waxoon na benn qaida wa xasbu maa yulamu jaahi jaizun kama taqulu zaydun baada man kon charte bu taxee ñu xam jawaab bi bu ñu xamee jawaabam booyo boo xasal dégg nga ah wal ak su qad yaati safaan baat mën na di du dëgg maanaam nga xadaf jumlay charte ngir xam nga ñu ko xam ni ki fa talliqha falastalaha bi kuf in wa illa yaaru mafraqaka al xusaam benn waay bu takk jabar waay sëpp ko nag kon nag fase rek mbaa jees yi dal fa talliqha gaawal fase ko falastalaha bi ko fi ndaxte yow doo nawleem fase ko wa illa soo ko fasewul maanaam wa in lam tutalliqha jumla jooju waaye xadaf nañu ko wa illa in rek la andi in in la in ana sartu jumlay sart dindi na maanaam wa in wa in la tutalliqha yaalu daal di féete kaw alxusaamu jees ji mafraqaka sa faq sa digg bopp ah seetal wa illa maanaam wa in lam tutalliqha mu xadaf ko ndax des na ko xam ci fa talliqha fa talliqha falastara bikum ndax yow doo nawle wa illa soo ko defut soo ko fasewul yaalu daal di kawe alxusaamu jaasi ji jaasi ju ñaw ju gaaw ci dog mooy xusaam mafraqa ka mooy mafraq mooy digg bopp makaanu farq shaar ndax njañu arab da daan def léeg-léeg ñu far ñu tafriq ko tëral lii fii tëral lii fii kon digg bi mooy mafraq lada ijtimaai chartin wa qasam jawaaba ma axarta fa huwa multazam yaar mën na dikk yoo xam ne lu ci nekk day sàkku jawaab qasam day sàkku jawaab charte day sàkku jawaab mën nañoo daje nag ni ki da nga ni la in faalta ah laamu qasam day am jawaab du dëgg ah waaye moom jawaabam kenn du ko jasam in nag dañu koy jasam suñu dajaloo mu ni loo ci mujj rek mu jawaabam nga war a xadaf moom la ni waxdif xadafal jawaaba ma axarta jawaabu loo mujje la dajtima chartin wa qasamin fa ngay xamee ni ab chart ak qasam dañoo dawloo ni ki la in faalta du dëgg su ko defee la gën xadafal na nga xadaf jawaaba ma axarta jawaabu loo ca mujje fa huwa moom multasamun lu ñu warlu la faw dégg nga soo ne la in dara la in darabta zaydan yadribuka su fekkoon ni masalan seetal in qaama zaydun waaw la in sax dama ko misaal laa mu xasam nan ko fise wallahi tey waaw ah déedéet loolu bokk loolu du misaal inna zaydan qaa'imun in qaama zaydun wallahi yaqum amrun in qaama zaydun su fekkoon ni moomoom charte si su ko wallahi moomoon danga danga naan yaqumu amrun ndax xasam moom du du du jasam jasam gi xam nanu ni inna ko moom in qaama zaydun wallahi yaqum amrun bu fekkoon ne fiilu mudaari o la nga ni wallahi la yaquumanna amru ndax fiilu mudaari o joo xam ne mustaqbal la su dee jawaabu qasam fokk yalzamuhu laamu alqasam wa nuunu libtidaai nga ni wallahi la yadriban tallahi la akidan ah ba nga ba nga ba nga ko jasamee nu xam ne ina ko moom naka noonu su kii dawlu woon eh, wallahi in qaama zaydun la yaqumanna amrun seetuloo la yaqumanna wallahi ko moom eh, kon in qaama jiga mujje xasaf nga ngi ñam loolu mooy waxdif xasafal jawaaba ma axarta jawaabu la nga mujje la dajtimaa shartin wa qasamin fa dajewuk sharta ngi fa huwa multazamun lu ñu warloo la dëkke ko wa in tawaalaya wa qablu doo xabar fa zaak fa sharta rajjix mutlaqan bila xadar dégg nga waaye nag wa in tawaalaya bu ñu sësaloo charte ak xasam ku ca mën jiitu wa qablu te mbir mum jiitu na leen zoo xabarin boroo mu xabar maanaam mubtada su fekkee mubtada dafa dawlu charte ak xasam door a toftaloo ci gannaawam sa waa on ku ca mujj kii kon fa rajjix lëngalal charte sa mutlaqan moo xam moo jëkk wala moo mujj su fekkee mubtada dafa dawlu daal na nga lëngal charte sa jox ko jawaab ji rek ah dégg nga loolu moo gën a rafet rajjix lëngal ko ma xanaa la ca des dagan na tarjiix moom bu ñu ko dee wax bay na chey ay ni lu ci ne mën na am waaye lii day gën a rafet kon jox jawaab ji sart mooy gën a rafet ndegam da nga ni ni ki tey ni mu ko misaale nga ni zaydun in qaama wallahi ukrimka jasama gën xam nga ni sart si moo dawlu xasam bi wala nga ni wallahi in qaama zaydun ukrimhu du dëgg tey moo mujj kon loolu mooy looloo gën rafet nag bu fekkee mubtada dafa dawlu sarta xasam door a dikk gën a am ku ci mën jiitu rek jasam jawaab ja jox ko sart si mooy gën rafet rafaa ko di ko jox wala du dëgg ah loolu mooy li gën a rafet moo tax mu raj waaye léeg-léeg waru bamaaru jeexa baada qasami shartum bi laazi xabarin muqaddam loolu nag bariwut waru bamaaru jeexa léeg-léeg yan tàng lu néew rubbama day tegtale taqlil amaat na lee ñu lëngal nag baada xasamin ci xasam ju jiitu ba yeggal sart dikk gannaawam léeg-léeg ñu def ko rubbama rujiha sart léeg-léeg ñu lëngal sart ba jasamal ko jawaab baada xasamin ci gannaaw xasam bu ko jiitu bilaazi xabarin mu ba muqaddam ci lu dul kat mubtada mu daw lu du daw bu mubtada daw la woon dañu ni kon wax nañ ko ba noppi du dëgg kon na nga lëngal sart si moo gën mu ni léeg-léeg ñu lëngal sart sax te fekk mubtada daw lu kon loolu nu jële ci ni yàlla butte sart dafa ëpp doole ci mbir gannaaw moom bu mu xadam bu mu xabar bu xabar dawloo it moom la ñu gën lëngal nag moo gën